nekk Sénégal yëpp ak euh, rawatina jigéenu Thiès yi particulièrement nag jigéenu commune Thiès bi maa di nuyu yéen kenn ku ci sa tur ak sa sant dellu nag euh, di nuyu suñu président docteur Djibril Sall c'est le président de notre mouvement ànd alliance pour une direction euh, ñu ngi koy sant bu baax ndax bés bi moom moo ko waral moo dajale groupement de femmes yi nga xam ne dañu nekk ci commune Thiès Ouest bi yëpp defal leen ay atelier de formation euh, loolu mënuñu lu dul sant ndax docteur euh, développement personnel daf ko fonk c'est pas la première fois sax ñuy def ay atelier de formation donc ci mouvement bi euh, formé nañ ci de 17 jeunes yoo xam ni en entrepreneuriat euh, leadership. def nañu tamit atelier boo xam ni euh, concernant la communication euh, ñu dellu si waat ni ñu jëlaat presque 10 quartiers qui sont dans la commune de Thiès Ouest mooy taxaw sama ñi nga xam ni Mbour 1 la Mbour 2 Mbour 3 HLM Mbour de Dakar. Rankees Somme Dizir Carrière donc ñëpp mu boole leen fii dajale leen jàngal leen xam-xam ndax moom xam-xam dafa ko yitteel rawatina ci jigéen ñi moom ba jàngi jotee war a wuti xam-xam dafa dem wuti ji xam ba war a jariñ liggéey jotee it dafa dem ba war a it def ci askan woon jotee dafa jug def ci askan te yàlla rek tax féetewul nag fenn ci nguur féetewul ci opposition day doxalin doxalin boppam mais yéene bu mu am ci doomu aadama yi moo waral lii yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ne ñu ngi koy def ci doomu aadama yi donc moom jigéen ñi dañ koo soxal dafa am yërmande lool ci jigéen jigéen ñi bari fii ñi fi toog ñépp ñu bari xam nañu docteur vraiment ci ndimbal bi muy def ci ñoom ne jàppale rek te yàlla tax ndax ki la xam ne dafa jël euh, atelier formation ñëw jàppale leen ngeen def seen formation ngeen jële si xam-xam su ngeen fi jugee dem ci seen i gox tamit sotti ko fa ñoo ñu mën ci liggéey lool ba ku ci ne mën cee jar ñu yóbbu sa kër kooku gàcce ngaalaama ma ñu am mënuñu lu dul sant ko ndax développement personnel dafa c'est très important te moom daf koo yitteel loolu rawatina le développement des femmes donc kii di développement des femmes bii donc mënoo lu dul def euh, jàngal euh, jigéen ñi nan la ñuy nappee moo gën a ko jàng jox xel bu may jën donc loolu moo waral bés bi tey donc may sant it femmes yi nga xam ni yëpp vraiment ñun ñëpp depuis 3 heures ba tey ñëpp bàyyi nañ seen yitte nekk ci liggéey bi ñëpp macha allah donc dama ci kontaan trop ñu koy sant encore bu baax a baax a baax di ko remercier di ko. ñaanal di ko ñaanal yàlla li mu bëgg yàlla defal ko li mu bëgg mooy mairie Ouest Foire ndax ki nga xam ni takkul benn ndombay tànk lu mu am bokk koog doomu aadama ko bés bu amee ay ndombay tànk kon kenn waxaale ndax li muy def da koy def rek te yàlla tax li muy def moom toogul ba ba bay wut dara doog a ñëw ci ci bëgg dara déedéet yàlla suturaal na ko ba pare mais bëgg na li mu am bokk kook njaboot yi rawat na nag njaboot yi njaboot yi moom mooy jigéen ñi jigéen ñi moom du leen da koo yitteel lool dafa am seen yërmande lool donc di ñaan sama yeneen mbokk jigéen ñi nga xam ne ñi ngi ci Thiès yëpp vraiment ñu ñëw jàppale docteur Sarr donc te parewul ci atelier bi par kii euh, la koy def bu ñu paree yi dina jàll ci yeneen secteur yi nekk ci biir Thiès yëpp vraiment maa ngi leen di sant ñoom ñëpp mooy groupement euh, yi nga xam ni ñoo nekk nii ci sama ginnaaw ñoom ñëpp nekk diggante Mbour 1 Mbour 2 Mbour 3 Mbour 4 euh, Grand Standing ñoom ñëpp daal presque 10 groupements la yoo xam ne sont 10 quartiers qui sont dans la commune de Thiès Ouest donc ñoo fi daje nii dixième ak yëpp ci lañ ko donc maa ngi leen di santaat bu baax ñoom tamit waaw di leen remercier parce que bi bi ñu leen oowee rek ñoom ñëpp dañu daal di jub waaye lépp lu ñu def ñëw ngi leen di sant bu baax di lépp lu yàlla defal ko waaw jërë ngeen encore merci. asalaamaaleykum maa ngi tudd Mati Koña Cissé euh, maa ngi ñëw tey ji nii si euh, foyer des femmes. di ànd ak euh, responsable des femmes de du mouvement ànd ak euh, docteur Sarr ñu woolu woon ma tey jii nii pour ma former leen seen groupement de femmes yi ah di rafetlu rek euh, initiative boobu noonu lu tax ñu xalaat si sama jëmm ji ba pare ñu xalaat entrepreneuriat parce que tey jii képp kuy dimbale jigéen nee naa danga koy jàngal nu muy nappee moom moo gën chaque jour nga xëy di ko may jën euh, kon boog suñu xëyee tey jii ne dañuy jàngal jigéen ñi ni transformation des fruits et légumes ah du def lu dul rek euh, saluer l'initiative di si remercier waale tamit euh, la responsable madame Virginie mi nga xam tey moo dajale femmes yi ñu war fee ñëw tey pour deux jours 48 heures former femme si conservation des légumes conservation des fruits dinañ defar euh, sirop dinañ defar euh, des croquettes yu comme coco ak euh, arachide dinañ defar des confitures et marmelade incha allah loolu daal lañ fi bëgg a def tey ñu tàmbale ko si bisimilahi rahmaani rahim fas yéene koy eggalee suba incha allah loolu doon solo si ndaje yi tey ñu répartir leen en quatre group kenn ku si nekk. nga xamante ni moom nga jàng tey su ëllëgee nga mën koo sotti sa groupement bi nga yoree si sa quartier. di terminer rek euh, di sant ak gërëm jigéen ñi fi daje ñëpp ndax xam naa ni motivation ak bëgg suqali seen gox moom moo leen fi tax a ñëw mais tamit ki leen may formation bi muy docteur Djibi Sarr euh, président mouvement ànd moom tamit ñoo ngi koy remercier si jàppale bi muy jàppale jigéen ñi fii si biir Thiès euh, ñu koy sant. mu lay may chaque jour di rafetlu initiative bi formation bi euh, transformation de fruits et légumes euh, euh, céréales locales yeeg yooyu yëpp c'est important ku nekk di nga ko mën a yóbbu sotti ko sa kër mu jëriñ la jëriñ sa gox aussi di sant aussi docteur Djibi Sarr bi nga xamante ni moom moo ñu ko may nga xamante ni dara soxlu ko du le développement de Thiès surtout que euh, zone bi mu dëkk mooy euh, Thiès Ouest di ko remercier vraiment di ko sant bu baax initiative bi mu jël pour euh, may ñu formation bi femmes yi. association Bon Cœur bi nga xamante ne ay élèves lañu yoo xamante ne. dañu jàngi école château d'eau primaire euh, ñu dem ba am 40 ans ñii 50 ñu ñëw regroupé waat encore rien que pour suqali école bi nga xamante ne fa la jàngee woon di jël suñu doole di ko def ci école bi rien que pour aider élèves yi nga xamante ne ñoo fa nekk di defaraat école bi di euh, fourniture yeeg lépp pour les élèves donc euh, ma ñëw représenter leen. te Djibi Sarr bi nga xamante ne moom moo organisé euh, formation bi c'est lui notre président du groupement donc ñu fier si moom ñu fier si moom parce que euh, moom mënoon na jàng rek pare dem gérer li muy gérer ba ñu jël lenn di ko delloo fenn mais dafa xam ne natif de Thiès la ñëwaat Thiès euh, du ci ñun rek lay def mais fépp lay def donc li tax ma kontaan nag formation bi bu fi jógee soo demee di nga formé waat ñeneen ay nit bu doon continuation continuité bi moins continuité ba nga xamante ne ñu bari bari bari danañ ci ma mënee kon ñu ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal lu mu mën ren yàlla mën déwén lu xaraw donc sama euh, groupement bi loolu lañ ma yebaloon pour ma représenter leen euh, def ci formation bi bu ma jógee formé waat ci jigéen ñi nekk foofu sant ñëpp di gërëm ñëpp euh, merci beaucoup. salaamaaleykum maa ngi nuyu ku nekk sa tur ak sa sant man la madame Ndiaye ñu koy wax Daba Ndiaye maay maa représenté maay président présidente ànd liggéey bu Mbour 1 di ay femmes yu dynamique yu am fula yu am fayda ñun lu ñàkk fayda sax yombuñu lii du ñu yëkkati mais démb Virginie si guddi la ñu woo contacté ñu. mais dañoo xam ni docteur Sarr moo ngi liggéey ci fulla ak fayda moo tax ñu jóg atelier bii nag mu créé atelier bi mooy suqaliku suqali euh, femmes yi ndax lii buñ ci jógee jàng tey dinañ dem suñu morom yi ñu bàyyi si ginnaaw dinañ leen jàngal en même temps ñun dinañ ci liggéey ndax mën nga toog sa kër sax bañ a génn si biti liggéey am sa xaalis def sa poche te loolu yaakaar naa mooy meilleure de choses que ngay jël chaque jour ngay woo nit ki di ko jox xaalis wan ko ni ngay liggéeyee daf ñoo dugal si liggéey bëgg ñëpp am jom liggéey am fulla am fayda ñoo ngi koy ñaanal nag lépp lu muy yootu yootu rek yal na ci jot waaw di gërëm tamit Virginie parce que nit ku baax la man toujours daf may woo xëy xam naa ko moom te xaw ma Chérif mi ñu contacté tamit boole ñoo Virginie ñoo ngi koy gërëm di ko sant moom it xam naa ku ku bëgg docteur Sarr la ndax tous les nuits ñooy toog mais toujours danaan jàppale leen docteur Sarr ku baax la politikul mais ku baax la moo ngi ñëw di def social si dëkk bi di jàppale nit ñi di jàppale ndaw yi di jàppale mag yi kon boog moom li mu bëgg rek yàlla na ko yàlla defal dañ koy briefing rek parce que temps bi moo gàtt te dañuy liggéey moo xam li mu bëgg nag yàlla na ko yàlla defal ñuy gërëm tamit Virginie di gërëm ñëpp femme ñi fi too ñi fi daje ñëpp ñoo ngi leen di gërëm ndax depuis 3 heures ba léegi li nga xamante ni ñor na leen rek tey ñëpp a bàyyi seen yitte 3 heures fi la leen fekk kon ñoom it niñ si yóotu rek yal na leen da yàlla defal merci. di Mbène Fall di représenté groupement Arame Fall bu Pàcc waaw waa dixième man maa représenté waa dixième maa ngi leen nuyu yéen ñëpp di leen def seen wàccuwaay di sant docteur Sarr rek initiative bi mu def bu am solo bi bu baax bi bu jàppale jigéen ñi ñëpp. nga xam ni macha allah ñu may la jën ñu jàngal ni nga nattee ko gën wax dëgg yàlla lii ñun dañ cee kontaan bu baax ndax ñun dañ koo bëggoon te gisuñu ko fenn wax dëgg yàlla yàgg nañoo am formation waaye bu mel nii musuñu ko am waaw musuñu ko am dëgg sa daal dañ koy ñaanal ci kaw ci kanam ci lu baax ndax mi ngi sukkali askanu kees wax dëgg yàlla jigéen ñëpp leen manqué woon lépp indi na ko fi maa ngi sant nag Virginie mi nga xam ne lépp moom la ndax mi ngi ci maa yi mi ngi jàppale jigéen ñi wax dëgg yàlla kontaan na ci moom léegi maa ngi sant ñëpp sama mbokki jigéen ñi fi nekk ñëpp maa ngi leen sant ndax wax ji waxta bu du lax temps bi may ñu ak wasalaam